rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam du nu ñaanoon daaw fii du toog nii yal yàlla may kàttan ak doole ba bu déwénee nu tàll sunu loxo Seydi Abdou Aziz Al yàlla nag def nu ko kon ñun ñëpp duñu war sant yàlla julli ci di ñaan nag sunu kilifa bu baax gii suñu kilifa gi xam ni yéen bi xam ni mooy yéen bu diis bi mu yenu ca yàlla jàppale ko ci ak baayam ak maamam Cheikh Sidi Al Hadj Malick ak baayam yu baax yi yéen boobu yàlla ko suñu moom tabaraka wa taala ci daraja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nu am mbégte ci dajawaat ak moom fii ndax daaw fii la nu dajawoon ak moom ren yàlla nu may nu kàttan nu dajawaat fi ak moom yàlla nu fi daja at yu bëree bëri ñëpp nag lu ñaanal ko gudd fan ak wér su borom tabaaraka wa bi xam ni moom rek mooy maye yàlla ko fi bàyyi lu yàgg yàgg ndax sagu kër Cheikh Sidi El Hadji Malick la sagu tarixa jullit yëpp léegi rek noonu noo ngi waxante ma moom mu wax digganteem ak sagu ba ca Touba Sidi Maxtaar ca loolu la mel ak jullit yëpp yi Sénégal yëpp amal nañu ko jàmm moom itam amal na leen jàmm ban lañ commencé rek lu taal suñu loxo bu ñaan nu soog a commencé comme ni ñu defoon daaw Faatiha salaatul Faatiha ñetti yoon. Faatiha ak salaatul Faatiha ñetti yoon. jox ko sang bi. jox ko sang bi. nee du jox ko sang bi. mooy yonent bi sallallahu mooy sallallahu taala alayhi wa sallam. ñu jox ko ko addiya. ñu jox ko ko addiya. ak saabaam ak saabaam. ak Cheikh na Tijaani. ak Cheikh Sidi Ahmed Tijaani. ak xulafaaw yëpp. ak xulafaaw yëpp. bismillah. na yàlla nangu léegi nag on commence vous êtes prêts vous tous asalaamaaleykum sunu mbokk yi seetaan télévision yi xam ni ñoom ñëpp noo nekk ci biir Sénégal baaxoo nunu at mu jot su Gàmbi gu jubsee Cheikh Sidi Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum xalif généralu Tijani yi jox ndigal rakkam ji xaritam bi soppeem bi comme na ko bàyyi bi alxaaji Abdoul Aziz daal defee comme na ko Seydi Mouhamadou Mansour daal defee yàlla na yàgg ci loolu nekk porte-parole baayam yu baax yooya dem yal na leen yàlla yërëm ak magam ji Seydi Mouhamadou Mansour tey nag ndigal la jot ci xaritam soppeem sëriñam Cheikh Seydi Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum pour mu sànni ay kàddu jëmale ko ci Sénégal yëpp ak ci Afrique yëpp ak ci Europe balay gàmmu gee yegg si ndax noonu la daan def léegi du bàyyi kàddu bi ak Seydi Abdou Aziz Al Amin أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin sayidina muhammadin النبي الفاتح الخاتم الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إخواني وأخواتي في الله أحييكم جميعا بتحية الإسلام الطيبة المبارك وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن من شيخنا ومحبوبنا الخليفة العام للطريقة التيجانية شيخ أحمد تيجانتي المكتوم أعطيكم لمحة وجيزة عن تاريخ الاحتفال وأهميته fi tiwaawan almahruusa bi ictibaarihi munaasabatan sanawiyatan nabawiya atira tumathil madrasatan maftuuxa ala almutaallimi walummiyi wa ala alxaasati walaama yatadaarasu wa yatabaaxasu xayaatu uswati alxalq wa siiratahu al-atira ihyaan taxlidan li daawati Cheikh El Hadj Malick Sy bi qawlihi alaa azimu layla al-wilaadati xisbatan idaa lam yakun naxwa al-xaraami uduulu mbokki jullit yi ñuy déglu. góor ak jigéen ak mbokki taalibe yi fu ngeen mën a nekk ci Sénégal ak biti Sénégal mu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di nuyu suñu mbokki journaliste yi fi daje góor ak jigéen euh, ci ndigalu xalifa bi Cheikh Ahmed Tidiane dañu leen di jox rek benn aperçu bu gàtt ci histoire bu daje célébré gàmmu ci Tiwaawan ak importance bi mu am mu nekk benn daje annuel mais lépp dellu ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñu mën a wax ni ba école la bu ñu ubbi moom gàmmu fii ci Tiwaawan école la bu ñu ubbi ñeel ki xamlu ak ki nga xam ni xamul te bëgg a xam ñu ubbi ko nag pour ñëpp ubbi ko itam pour ñenn pour ñu daje jàngandoo gëstandoo dund royuwaayu mbindeef yépp ak biographie bu sell bi nga xam ne moom la bàyyeeg jaam yi pour ñu roy ci ni ñuy dundee fii ci àdduna nga xam ni dafa lëkkaloo bu àllaaxira bi ñu dundal ko nag dund koo xam ni dafay béel day continuer toujours mu dëppoog woote bi suñu sëriñ wax Cheikh Xaaji Malik ala azimu leylal wilaadati xisbatan ida lam yakun naxwa alxaraami udulu moom d'accord na bu baax ci ñu daje màggal guddi gi ndax ba mu koy laata def fekk na boroom xam-xam yi ak nitu diine yu mag yi suufi yoona yi fi jëkkoon jëkku ko d'accord doon ko màggal moom fentu ko dafa ñëw rek roy ñu baax ña fa ñu jaar mu jaar fa euh, wax nit ñi yonent bi sallallahu alayhi wa comme mooy sunu roytuwaay ci dundu àdduna euh, ki ngay roy il nga xam ni mu mel bu dee jikko ji nga xam luy jikkoom bu dee ci melokaan bi nga xam luy melokaanam te moom nag ñaar yëpp la boole ci màggal yonent bi sallallahu alayhi wa dana la wax ni mu meloon ci zahiram wax la itam ni mu meloon ci baatinam mu dellu ca wax ji wax rek ni na màggal guddi gi feeg jàngul nag jëm ci lu xaraam feeg yéen ngi sàmmanteeg yam fi mu war a yem rek bañ a déborder bañ ko jox cëru yàlla waaw waaye lu dul cëru yàlla rek yelloo na ko ci lu baax moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni kon nag na ko màggal màggal gi nag bañee feeg jëngu leen dimti lu xaraam bu si lu xaraam bokkee nag ah dafay daal di xaw a doy waar ndax looloo doon mission tere nit lu xaraam mu commencé ba ni mu wuyjee ki ko yónni woon muy yàlla tere nit ñi lu xaraam waxuma sax lu xaram waaye lu ñu siib sax mu di ko tere nit ñi mu mel na nag ren devise bi nga xam ne moom la ñu jël ci gàmm gi mooy di al ilmu wal amal li taxqiqil amal aw il ilmu wal amal yuxaqiqaani al amal boo ci wax rek baax na xam-xam ak jëfe xam-xam mooy tax nga am da nga bëgg soo amee xam-xam te jëfewoo ko amuloo solo soo bëggee jëf te amoo xam-xam amuloo solo da ngay boole ñaar yëpp xam-xam-xam jëfe ci rang bi nag lakk yi boo bëggee bokk ci lakk yi ngay am xam-xam jëfe waaye soo bëggee jëfee li borom xam-xam yi jëfe te xamoo ko dangay ngay walla nga kàcc soo bëggee sa amee xam-xam itam te jaaroo fi ñu baax ñu jaar xanaa ni mu la neexee rek kooku itam da ngay di génn ci làkk yi soo bëggee bokk ci làkk yi nag dangay am xam-xam jëfe xam-xam la moo tax shiar boobu lañ jël def ko devise gàmmu giral al ilmu wal amal yu xaqiqaani al amal alilmu wal amal yuxaqiqaani al amal xam-xam ak jëfe xam-xam ba mooy tax nga am li nga bëgg euh, su ko defee nag euh, première euh, troisième point bi nga xam ni mooy ëmb gàmm gi bokk na ci woote bi nga xam ni xalif xalifa bi woone ko mboole njiitu diine yi ci Sénégal ak fu dul Sénégal sax ak xalifa yi nga xam ni ñoo donn mag ñi ci tariqa yi tariqatul muridiya tariqatul qadiriya tariqatul layeniya tariqa yi ci àdduna bi ëpp nañu junni tariqa waaw waaye ñun ñeent lañ ci am suñu bos bi ñuy tudde ak tariqa tijaaniya Euh, dàkkale ko Cheikh Ahmed Tidiane yi ci giir gi nga xam ni ca la bokk ca Maroc wala ca Algérie euh, moo tax ñu naan ko ab Tidiane yi ak giir ga noonu la tudd mu woo ñoom ñëpp woo mbokki xaadir yeeg laayeen yeeg ngi woo mboolem association islamique yi ak organisation islamique yi famille diine yi famille xam-xam yi ilimaan yi professeur yi jàngalekat yi ba ca jàngale ci université ñoom ñëpp jox na leen wooteem ñëw teewe gàmm gi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko moom te yonent bi nag lu mu moom jullit yépp ko bokk muy jubale nag woote bu ràññiku bu officiel ci jiite réew mi raïsan xukumatan wa nubaaban wa suyuuxan ñu ngi woo ki jiite réew mi président de la république Macky Sall euh, ak chef du gouvernement ak ay ñi mu ko bokkal ñëpp bi ci député yeeg sénateur yeeg ñëpp ngi leen di woo responsable société yi ak secteur yëpp sëriñ baa ngi leen di invité ci gàmmu gi Euh, mi ngi jubali itam woote bu ràññiku jëm ci ambassadeurs yi fi représenté pays islamique yi te ñu accrédité leen fii ci Dakar mi ngi woote woote ba tey bu ràññiku jëm ci mboolem fédération yi moo xam fédération daayira la moo xam fédération beneen organisation la ak mouvement yi nga xam ne dañu aju ci tariqa bi mi ngi woo mbooleem euh, mbooleem euh, bindikat yi ak siiwalkat yi xabaar yi te muy journaliste yi ñoom it sëñ baa ngi leen di invité ci gàmm gi ñi amee télévision yi ñi amee rajo yi ak mbooleem citoyen yi nga xam ni ñu ngi dund ci Sénégal wala ci li génn Sénégal euh, mi ngi woo jullit yëpp mais plus particulièrement nag la jeunesse la jeunesse sénégalaise ñoom ñëpp sëriñ baa ngi leen di invité ci gàmmu gi gannaaw loolu itam mi ngi dénkaane rek ci mbokk yi nga xam ne ay soppe lañu lii gàmm gi laaj yëpp ci ay respect ak ay discipline ñu sàkku ko exige ko ci àqu dëkk bi ngeen déggoo ak comité d'organisation bi nga xam ni ñoo jiite organisation gàmm gi euh, muy koskaas sëriñ baa ngi dénk mbooleem chauffeur yi ak foo nekk chauffeur ngeen respecté discipline bi nga xam ni moo war a dox seen diggante ak ñi nekk ci yoon yi maanaa moom chauffeur yi ñu respecté li code de la route wax respecte itam les gendarmes yi nga xam ñooy taxaw ci yoon wi te suñu mucc rek ak mucc njaboot gi moo tax ñu bàyyi seeni njaboot bàyyi seeni kër ñëw taxaw ci mbedd mi pour que ñu am jàmm mucc donte yàlla koy joxe waaye ñu sàkk ko ba defee nag mi ngi ñaan ngeen respecté te ak ñoom li ñu leen sant ngeen doxale noonu te bañ doxale rek ni mu leen neexee ñoom itam sëriñ baa ngi leen di ñaan ñoom gendarme yi moo xam walla euh, ñi nga xam ni ñooy garde ñu am respect ci nit ñépp waaw ndax itam nit yilif ko dutee nga respecté ko euh, ngeen bokk service yi dutee nga respecté ko ñeewante leen itam ndax tukki dafa metti ku jóg ngir yàlla di tukki jëm ci dëkk boo xam ni xëy na am nga fa kër walla amoo fa kër waaye ak lu mën a xew rek gan nga te gan dafa gaaw tumuraanke ñuy ñaan rek gan ñooñu ngeen naxante ñoom ubbil leen seen xol ubbil leen seen waaw te bañ a def rek la ma gendarme bi defoon ca euh, réew ma de ni ma dogale ma di ko laaj rek mu xaw a tàng lool ni ma fii dëkku loi man lam yuraa il qaanuuna yu àqab ñu fii dëkk lu wàll ku fi sàmmoontewul ak yoon dañ lay mbugal ma ni ko ak dayfu laa yu àqab innamaa yuxtaram ma ni ko gan kenn du ko te man gan laa waaw ngeen xam ni risaala yenent bi fi la am njàngale yem diggante nit ak morom ma mm-hmm. bu ngeen gisee gan guy xamul di laaj taxaw leen am respect ci moom déglu ko ba xam lan lay laaj kër lay laaj walla mbedd lay laaj walla fu ñuy sutur loo lay laaj benn bu ci nekk nga déglu ko ca wax ko ca la nga xam bu dee kër la nga xam kër gi nga ne ko jaaral ci mbedd mi boo jardee ñaari kër bu ñetteel ba te poto bu bula ba walla poto bu xonq ba nekk ci bunt kër ga foofu ay kër ga waaw su fekkee quartier lay laaj nga wan ko quartier bi ci waawoon am na quartier El Hadji Malick am na quartier kër jëwrin may sa mbay am na quartier kuli ngi jaan jaalo ngi jaan ñaari bentene tiwaawan wolof tiwaawan murit eh, bu mu ci mën a doon rek nga la te nga xam ko nga wax ko ko boo ko xamul nga laaj ku ko xam mu wax la ko nga wax ko ko ndax gan dafa gaaw a tumuranke su dajewul ak borom xol bu yaatu te ubbeeku rek du ko satisfaire te waxoon naa ko waa jooju keroog ma ko yéen yéen amee risaale yonent bi maa ngi jaar Paris ay tubaab ba fa nekk gëmuñu yonent bi waaye ku ci jublu mu taxaw nekk la muum ba nga ñeme ko nga wax ko li nga bëgg mu wax la ko man ko yéen ngeen nit yéen a doon risaali ki gën ñëpp te moo di muhammad sallallahu alayhi wa am leen sax sago bu ngeen néggee waxee bu ngeen waxee gan ma ne ko moom yërëm gan ba ni nangami kilomètre rek su ko daggee sañ na di wàññi julleem ba ba muy dellusi su fekkee ne du fa sax lu ëpp ñeenti fan te ñeenti fan yi bis bi mu demee bokk ci bis bi mu ñibbee bokk ndax yërëm gan rek ak xam ni tukki ni mu métti waaw nga jëm nag dëkk boo xam ni boo demee peut-être sax ci suuf ngay tëdd walla ci basal walla boo amee chance ci mat la boo gënee am chance nag ñu jox la laal tukki bu méttee noonu nag ku ca toll dañ lay yaatal ndeysaan dalal sa xel papa loo bëgg foo jëm ndox nga bëgg xel li ko ndox mu naan waay waaye yëpp ngeen jàng ko respecté ñi ñëw ah ko defee itam ngeen respecté ñi nga xam ne ñoo amee service gan ñi itam am yar bañ nekk gan gu ëpp gaaw a mer gaaw a fat fati xamoo ma xanaa man xamoo ma may diw may dem ba kura faal ca Louga sama maam yaa daan def ni yooyu ku la ko laaj su ko defee amoo sa amoo sago bu yow tam buñ la terale fekk bu boobaa nag buñ la xawee woon mànk de respect yaa ko def waaye boo dalee rek danañ la wax ni ngay doxale nekk gan it du tee nga am dal nag waaye dafa am gan ñoo xam ne dañoo gaaw a waaw lu tax nga bàyyi diw mu jàll te bàyyi woo mu surtout bu président dee ñëw am na ñoo xam ne dañuy bëgg rek ñëpp ñëw yem déedéet yàlla yemalewul nit ñi am na ñoo xam ni man ni ñoo dugg am ñoo xam ni ci saal bi lañuy yem am na ñoo xam ne ci parang bi ku ci nekk ak fa sa daraja toll ndax bu ñëpp bàyyi ñëpp ñu dugg ci saal bi ah saal bi day daal di fot ak nit te loolu di du tereel rek gan gu day ni président de la république nga di ko am mu tax laa jóg ngir sa feet ki nga gën a fonk mu yonent bi waaw yow nga bëgg nag fekke lépp teew fépp jël place yëpp ah loolu kat yombul boo defee yéen tam ngeen xam loolu fi président di dal ñëpp xaj ñu ko li ñuy def moo di dana ñëw bu ñëwee danañ ko teeru mu muñ ko war a teeroo bëgg nañ ñëpp génn teeru góor ak jigéen ndaw ak mag won ko seen sëriñay kan Seydil Hadji Malick doo defee ñëpp génn ci mbedd mi ci kër yi ci dëkk yi teeru ko teeru bi mu yelloon ndax ku nekk xam ne ni mu toll ci réew le chef suprême de la nation nga tax koo jóg na yow tam nag nga am mat gu doy lañ jox ko li mu moom te mooy nga teeru ko teeru buy teeru bu rafet waaye teeru bu xumb nag nga defee na taalib yëpp génn na mbokk yëpp génn na citoyen yëpp génn na wëllër yëpp génn teeru ko ni mu ware ngeen sagal seen kër sagal seen sëriñ waaw ah, bañ ko def rek yëf yi taalib yi nga xam ne ñoom seen bopp rek lañu gis waaye gisuñu seen sëriñ gisuñu seen tariqa dañ koy tuddoo rek da ngay tuddoo rek ku tuddoo tariqa te muy dëgg ci yow da nga ka jiite tariqa ba mm-hmm. kon loo koy doy bu la matul njiit loo koy doy loo koy defal si njiit da koy respecté bu waxee nga def ko bu teree nga bàyyi waaye citoyen la waaye citoyen waaye mooy sa chef mm-hmm. mooy sa chef il faut ngeen xam loolu da ngeen di xormaalante boo ñëwee ci kër sëriñ bi daf lay ormal li nga nim mu lay teeroog ni mu lay def ak fi mu lay teg fi muy toog la lay toogloo du la toogloo ci suuf du la defloo lenn luy wàññi sa sa sa xiima sa valeur daf la koy jox ba mu mat fa mu toog la lay xëcc nga toog fa bu ñoom ñëwee sax yéen a koy bokk walla mu bàyyi mu bàyyi koo yow sax ngir teral la rek waaw kooku yow tam nag bu santaanee defal amoon màggaay gu day na doo ko def nag wala matatu lu njiit ba loolu ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax di respecté di xam ni ngay wax waaw te wax dafa garaw waaw wax dafa garaaw te am na loo xam ne boo ko waxee rek dafay daal di xaw a doy waar nga defee loolu ñu koy dénk taalibe ñoom ñëpp nañu génn teeru ko du leen tee nekk ay citoyen modèle du leen tee nekk ay chef ci seen i famille ci seen i bureau ci seeni tool ca seeni marché ca seeni maison de commerce waaye bésu tere leen tere rek yonenti bee moom kenn warul mer waaw kenn warul ma woon kenn dara lu dul dal woyo waaw ndax daf ci amoon benn kilifa ndeysaan def lu ma neex danaa ko di faral di nettali dafa am ku mu mere woon fu mu ko joxe loxo rek mu bañ ba bés nag gàmmu jot mu ñëw jox ko loxo mu jox ko loxo bu baax ak accueillir ko may ko kanamam fekk waa ji nag ndeysaan fu mu ko nuyoo mu bañ rek day ñëw ni ma sa waa de nuyu naa ko waaye dafa bañ ma ne ko ah tukulóor la de tukulóor du neex dere <laughs> xëy na di ñàkk bés nga nuyu ko rek mu nangu ndeysaan bésu gàmm gi nag mu nuyu ko daal ndeysaan nuyu mu fay ko fay bu neex ak kii yil ko bu baax euh, bañ ci jigéen nag mu séenaat ko ci benn ngénte ñu daje mu bëgg mu defe ni loolu di yooyu mu jox ko loxo mu bañ ni ko keroog ci waawoon gàmm la woon gàmm lu nit mer mer mer bisu gàmm da nga war a kontaan ni ko looloo tax nag ma jox la loxo bu baax waaye gerte bi koy day continuer waaw eh, kooku dégg na mbir mi xam na ne gàmmu moom waaw koo xam ne kii sa juddu jën yi dañuy bëgg ba wananteetuñu gaynde dajee kéwal du ko xool fóon ko bukki dajee bëy boot ko ah till noonu rab yëpp di fóonante ndax juddu sang bii rek garab yi daawul meññi meññi yi daan meññi forox meññi neex lépp pour teral ko rek waaw kooku koy loo téyal nit itam bu bés boobu na koy ñuqi ba mu set ngir jëmm sang boobu rek jéggal ko su fa mënee doxi continuer moo gën waaye boobu bu fa mënul dox continuer bés bi rek la ca topp nag nga jégg nga nga nga nga yaatal ko rek on ko kanam kooku boo boo xam naa yonent bi rek wala sopp naa ko daañ ko mën a nangu su ko defee nag kon loolu ngeen bàyyi ko bu baax baax ngeen bàyyi loolu benn euh, lu lu fi jaar rek la nafsat masdur la dañ koy yàbbi su ko defee itam euh, ngeen ñu ngi wax jaaykat yi ñu sàmmonteeg àqu njaay te mooy bul yokku si prix ndax bis bi kooku rafetul bés bi sax ñëpp dañu war a wàññi seen piir ngir terale ko yonent bi yow na ngay dàq gàmm pour yokk marchandise mi pour sonal gan ñi loo ci am day day niil day demaat ci lu xaraam doo ci am la nga bëgg nga bëgg na kon ngeen respecte dëkk bi yéen jaaykat yi ngeen bañ a jaay lu ñuy tere lu ñuy tere bu kenn jaay drogue bu kenn jaay sàngara yëpp dañ koy tere alquran ko tere jaarale ko yonent bi mu jaarale ko ci jaam yi bu leen jaay marchandise moo xam ni dat ba dafa jeex waaw mu expiré nga di ko jaay di ko jaxas jaxasee ci biir yu baax yi boole lu baax ak lu bon di di di jaay kon yow tere tere loo yonent bi te loo si am danga koy ñàkk danga koy ñàkk ci lu xaraam sax boo liggéey yàlla poñe la rek ne la waaw ay ca ñaar yu xaraam nga waaw boole ñaar musibataani sama góor gi doon wax ndeysaan sama bor ba ma ñëw ni ko ah, ñu ngi may indil kat ma ne waaw demal nga fay ko nga fay ko mu ma ma ñëw indi intérêt yi quatre-vingt mille la ni ko mu ngi nii mu ne fu mu jëm dafa nu koo may man ko déet intérêt yi la mu waaw mu si ma intérêt l'islam daf ko nga nangu ñu tegle intérêt yi daf ko teel yow nga koy nangu ñaari musiba nga waaw góor gi tubaab nag booy jëlee yëfam te muy am ay fan dana am lu ca teg nag aha noonu la ñuy doxale moom waa kon da nga la ñëw moom nee na intérêt baaxul yow mi ko nangu it baaxul ci yow muy ñaari musiba la waaye nag am nag moom lum mu la <laughs> jaay teg ci intérêt ne waaw kon nag waaw baax na bopp waaye ngeen xam ne rek xaraam na eh, ñuy dénk itam waa dëkk bi rek ñu seetal dëkk bi bul bari sa kër ak sa buntu kër rek bàyyi la wër sa buntu kër yëpp na nga ko bale na toppal xeer yi gaañ nit ñi waaye seetal am na benn nit yàlla boo xam ne dara du woon métier lu dul bu bésu altine ak bésu ajjuma day wut ñaari ndaw ku nekk mu yan benn pañe di wër mbedd yi lu mu gis mu mën a gaañ nit rek mu for ko def ci pañ bu dee seng bu mën a gaañ bu dee xottu butéel bu dee xeer bu placé foo xam ne nit dana forom bu mu mën a firi tànkam mu fol yooyu yëpp loolu lay def tarbiyaam ci doomu aadama yi ndeysaan benn nitu yàlla la woon di wër place yi nga xam ni nit ñi néew ñu doole ci tëdd te amuñu ku leen toppatoo day dem def lu ñaari këll yu mag bii mu def ca supp bii mu def ci ruy waaw dem di leen yëkkati di leen jox ñuy naan defaral leen ba ñu baax diw leen foroote leen bàyyi leen ñu tëdd ko ci amul mbàjj mu jëndal la mbàjj indil la seetal loolu rek ñun nga xam ne foo seen ko xaw a sori sagasa nga waay bu mu yegg si nag na yem foofu waay ah fu mu jëm sagaram yi waay moom nag loolu la doon def liggéeyam di ko tarbiya yonent ci ja ci jàmm yàlla yi waaw ah, ndeysaan ba nga xam ne waa këram dañu muy sax di ko wax daal ka naan ko danga ñu mas a indil feebar boo xam ne waaw mu ni ah waaye man lii sama tarbiya rek ndeysaan mu xëy rek mooy njaboot bi neen ren danaa dee wala danaa feebar ba ñépp déggu ñu ne ko waaw lu tax loolu nga wax ko mu ni dama gént bi may gét génn dëkk bi ma dajeeg benn waay bu sëf mbaam ma ne ko mbaam mi lu ci nekk mu ni ma balaa ma ni ko balaa bi ku ko moom mu ni ma jaam yi ma ne ko tee nga ma koo xëpp te bàyyi jaam yi mun ma ay ca ma sëgg mu sotti ma lépp ma xam ni kon nag danaa dee wala danaa feebar ba ñépp yëg fa mu doon wusi fa fa la daal tëdd na ñetti weer seetal mu jël mu jël jaam yi boobu boobu musiba balaa yooyu yëpp mu yàlla ah nit yàlla façon bu ne wutee nañ ko yàlla su ko defee nag kon ngeen bottu bu baax ci yéen ñi jaay ngi baax rek ngeen jaay ko bu leen fi indi marchandise mu yàqu ba noppi ngeen jaxase ko la mu yàqu bu ngeen xamoon loolu mbugal mi ngeen ci am ci biir bàmmeel ak ca yóbbi si penc ba taxawaay ba wallaay du ngeen ko def ba defee na kon ngeen bàyyi xel loolu bu baax a baax a baax waaw te ngeen nekk rek ñu accueillant di teeru gan yi teeru bu rafet ah su ko defee kon loolu mooy wàllu commerçant yi nañu wàññi prix yi bu ñu koy cheral ndax rek gàmm gi occasion la pour ma man ci am dara kon yow lan nga participer ci bésu yonent bi bés boo xam ne rab yi sax am na lu ñu wàññi rab yi rab yi soxoroon sox soxoratuñu waaye yow ngay dàkk bis boobu pour yokk sa marchandise di ko denc marché noir marché assuuqu sawda wala al aswaaqu sawda marché noir te ñu tudde ko marché noir kay mooy nga xam ne moo tax nga xam ni baaxul marché bu ñuul mooy nga rey nit ñi loolu ñu ngi ngeen koy dénk yéen commerçant yëpp ngeen taxaw bu baax a baax yéen itam ci gàmm gi ngeen bokk yéen ko moom sax su ko defee itam ñuy sëriñ bi xalifa bi ñu ngi dénk gan ñi waaw bu ñu wàccee rek au jëkkoon ñu toog di waxtaan ak di xaqtaay ñuy jàng al quran te fa ñu wàcc su waxtu wasifa jotee te mën ñoo dem ca jàkk ja ndax xataay yoon yeeg coono tukki bi ñu wasifa fa ñu nekk ci seeni kër ku nalal sa malaan nu wasifa bu ñu noppee ñu ñaan jàmm jàmm ci réew mi jàmm ci njaboot bi jàmm ci diine yi jàmm ci adduna bi continent yëpp am jàmm yi takk di wut si doomu aadama yi yëpp yàlla fet ko ba du yegsi ci suñu réew lépp nekk jàmm boo defee ñuy ñaan bañ a bàyyi rek ndax addu aw silaaxul moom it moom lu yonent bi wax nee ñaan mooy gànnaayu jullit aji gëm ñaan lay def gànnaayam su jàqee rek tàllal yàlla loxo ni ko maa ngi nii waaw maa ngi nii manuma aw ma yow yaa man yaa am maa ngi lay tàllal suma loxo yi nag looy su teg rek baax na nga defee ñoo ñooñu may leen ñu ñaan leen bu ñu defee julli yi aussi ba ñu joxe ay dog moo xam ci latif la moo xam salaatul fatiha la moo xam ci basmala la bu ngeen ci man rek baax na joxe ko ay dog ku ne def ko ngeen dem mbooloo mu bari bu ko nekk di ko fukki yoon rek day daal di nekk lim bu takku ngeen yéene ko gàmm gi ñu ciy ñëw ñi koy def ak ñi koy organiser gan ñi ñëw ak ñëpp waaw ñaanaa leen waa nitu diine yi kilifa diine yëpp waaw ñaanaa leen tariqa yëpp ñëpp am jàmm ñaanal leen état bi ak li ñuy liggéey ñëpp am jàmm su ko di ko def noonu ñetti fan yi yàlla ñuy toog ko tiwaawal nga xam ni nangoon naa ci làmmiñu Cheikh Alhaji Abdoul Aziz Sy radiallahu anhu ni ma ah xanaa dafa fekk rek nit ki eh, sës ci mbir maa koy doy mu ne waaye tiwaawal mag ñi dañ ko lawraataale foo toll rek boo tàllee leen sa loxo ñu teg ci nu ba jaari ci route nationale jëm man manoo yegg si bu oto bi tolloog raw du yi rek nga tàllal sa loxo loo bëgg ñaanal danga koy am wax na dëgg wax na dëgg te kenn du am kuddu di lakk waaw du ñu am ñu mel ni ñu ñu am koo xam ne kii bu ko neexee téléphone te yàlla faj sa aajo léegi benn góor moo ma wax ko wax alxaaji góor yi sa njaay mun ma sama tànk dafa metti ba ñu war ko dagg ñuy wax tànk robaale yooyu mu ni ñu ma ñëw ci Seydil Hadji Malick radiallahu anhu wax ko ni ko ah <clears throat> sama bàyyi moo ma yebal ne mu woo góor gu ñu wax Alioune Fall Alioune Fall bàyyam ak Seydil Hadji Malick bokk benn ndey ñu ko yóbbu ko ci docteur bi mu seetal ma tànk bi lu ci war ne bañ demee docteur bi seet ko ni ko ay tànk bu pourri na il faut dañ koy dagg waaye duñ ko dagg fii ci Tivaouane ni mu koy daggee Ndar waaye dama koy defar ay këyitam nag mu dem mu demee ñu dagg ko foofu nee na bi ñu dellu see rek xam naa yàlla jaay yëngu mu ni ma ndax wóolu nga ma nekk sa docteur ne ma ne ko góor gi yow laa gën a wóolu ci yàlla di <laughs> ndax yàlla gisuma ko nit ma koy wax rek yow maa ngi jàll ak yow mun ma demal ñibbi ne ma dellu si suma bàyyi ni ma ah wóor oh, lii nag ma ko ah moo doon nee na ma ndax wóoru nga ah, doom ma toog tànk bay dellu gannaaw di dellu gannaaw ba teg àgg di dellu gannaaw ba àgg wat mu woktu bay ñëwee sànni ma xool mu ngi mel ne dara ma su cee nekk ah, dafa téléphoné yàlla su direction am na martaba bi li ñuy li mu ci am mat li junni yoon dafa doon wax rek nag ndax moom intéressé wu ko mu wane boppam nee na bi mu demee màkk la mu fay jëkk a ñaan ñett lay ñaanoon ca màkk ku dem màkk da nga am xaalis ma def lii ma ami doom samay doom yi am liggéey sama kër gi ak sama tool bi moom nee na ba mu demee def ni yàlla cër boo may jox ba mu demee ca Kaaba ga ba mu wëtee ba yegg si ca càllale yi dafa téye dël ni boromam cër boo may jox nag mu ko dencal bu ëllëg waaye boo ma ko jox ci àdduna bu kenn xam may kan ba ëllëg mu ne ko bi ci néeg yi ñu lay jaamoo yàlla na bari ca senegal te ma bokk ci am na waaw te dafa muus El Hadj Malick xam na ni jàkka fu mu samp rek diine samp moo tax mu di politique gu diineem yëg ci tabax jàkk kenn gisagul jàkk ju ñu abandonné kenn gisagu ko jàkk ju ñu abandonné wala ñu di ko jaay kenn gisagu kenn gisagu moo tax mu def politique am yëpp ci tabax jàkk mu ni ko nag jàkk yi lay jaamoo yàlla na bari ci Sénégal te ma bokk ci bokk na ci ndax jàkk ji julli dal maanaam bu si te njabootam ciy ëpp kon kay ñaan nga nangu la mu ni ko bi ci des yàlla na nga ma jox pàkk bu lew ma di sama ñaq di ko dundee te bañ dundee ñaqu taalibe yi seetal loolu rek moo tax nag sëriñu Tijaan du am addi taalibe tijaan xamul joxe addiya di wala koy joxe kay jënde ko lu rafet sol ko ñëw dend ak sëriñam ñaan gaa nangu rek la muy may may dund sama ñaq bañ dund ñaqu taalibe yi rek doo am addiya mu nga defee ñu jàng alquran ñaanal ñëpp pour combler vide yi am buñ toog rek di waxtaan indiwuñu fi wut si yàlla moo tax ñu ñëw waaw kon nag bu yàlla jëral bu ñu waxtu jullee nañ julli bu ñu jullee te wasifa war nañu wasifa bu ñu jullee te lazim war lazimal bu ngeen noppee bu fa ku nekk jàng arab nekkee mu jóg def benn leçon benn darsi ci yonent bi dundam nii la doon def fii la jaar nii la mel naa la mel waaw nga dolle nga nga nga nga dolle ndikoo ci ci ci ci sa gàmm su ko defee bu ñu bàyyi benn vide te combler ko bu ñu mën a def dara looy indi tuyaaba jullit du perdre tuyaaba bu ko defee ilqaa u duruusin diiniya fil amaakin waaw su kenn loolu jàppandi na ak doonte minute yu ndaw la sax ngeen def ko rek Euh, ñuy ñaan itam taalibe yëpp ñëw fekk gàmmu gi ndax lu ko ñor la woon moom Alaaji Maalik dafa mas gàmmu ci Tiwaawan ñëw ci jumaa ji guddi gis jumaa ji feesul sax mu gis boppam la masul gis boppam sax waaye mu wax rek ah, lu ko ñor la mu ne ah fii si Sénégal de ku fi am tariqa te mu wér ka la ko jox ka maa la ko jox wala ka la ko jox maa ko ko jox mu ni ku fi am euh, ijaaza te mu la ko jox wala ka la ko jox maa ko ko may gàmmu suma gàmmu di wéet fas naa yéene fii ba Jolof fii ba góor saani di fekkee sama gàmm léegi dafa naa ni weesu de jarul sax Amérique France Italie Espagne àdduna fu njaboot nekk bu gàmmu jotee rek yaa ngi préparé pour gàmmu si kon loolu mu waxoon lu ko ñor la taalibe bu dul faali fu sëriñam nekk sëriñam du ko faale te boo dee bu dee nitu yàlla nag bu la faalewul rek yàlla du la faale day yéeg ba ci yàlla moo tax toujours da leen bàyyi ci waamat xel daf daan wax ni seen diine sëñ Babacar Si moo ko daan wax faram fànce ko ba mu jeex seen tariqa faram fànce ko seen métier encouragé ci taalibe yi ñu am métier liggéey borom ci am métier li muy jëriñ mu ni seen i daayira ngeen bokk ndey ak bàyyi ci diina ak ci tariqa waxul daayira ngeen dajale xaalis indi fu ngeen ko jële keesu daayira sëriñ bi moom ko daayira bee ko moom solidarité la ku ci amul ku am ordonnance te amoo loo ko jënd ñu dindi ci kees gi jox la ku ci am ngénte te amoo xar ñu yërëm la dindi ci kees gi jox la ku ñu ci tàggee sa mbokk fu sori te amoo paas ba ñu yërëm la dina ci kees gi jox la loolu la ci jublu woon solidarité la entre le marabout entre les talibés waaye waxuñu nga dem buub ko ni sëñ bi laa ko yóbbul ak jéem ak nga yóbbu solidarité la moo tax mu ne ngeen bokk ndey ak bàyyi ci diine ak ci tariq mooy daayira moo ko jëkki génn 1927 moom sëñ Babacar tey ñëpp a ngi ci man naa ni jaay ne sax ndeysaan bokkul ci diine lislaam waaye mu ni ma damaa gàmm na nga indi sa participation man ni jaay nooy gàmm mu ne ah ñu ngeen di gàmm da ngeen di tànt woote togg seen i ñam ñëw ndoxtaane leen ci Muhammadu yaa Rasulullah ma ne ko ah, mu ne man tam damaa def sama ngalax def sama jinja kon sama mbokk catholique wala benn nag mu waxtaanal ci Isaa ibn Maryam en tout noonu la de waaw moom kon nag gaaw indi sa participation mu génne jox ko ay sant Sénégal ñëpp benn lañu hmm. catholique da am ay nijaay catholique ay nijaay ay tante waaw su ko defee yëpp da nga koy sóoraale nag ci sa biir doxalin xam ne am nga ay bokk yu bokkul ak yow diine am nga ay bokk yu bokkul ak yow tariqa yooyu yëpp da nga koy eh, sóoraale ci sa waxtaan ak si yëpp di leen bàyyi xel bañ nekk dof boo xam ne loo neex wax waaw loo neex wax déedéet suñ kër Si nee na xalilu góor ba dafa toll ci digg ndawam am fasu naaru góoram sañse ba xat war fas wi dajeeg benn mag mu ko waaw sa fas wi noo ko wunde mu ni ko lu ko neex def góor gi ni ko lu ko neex dal ko lu jeex lu ko neex def lu ko neex daal ko nga defee nag kon yooyu yëpp nag ñu bàyyi ko ci jëm Tiwaawan jotee ngi ñëw Tiwaawan nga yaakaar boo yaakaaree fee foofu bu xewlee demal noonu la waaye nag rek eh, defe ne yooyu yëpp boo ko defee nit nit loo ko defal sabab nga ko defal te Alaaji Maalik taalibeem bi dafa toog lu yàgg gisu ko mu gént gis ko wuti ko rek moo doon ko gannaaw mun ko bëgg naa la sopp naa la di mun ko géej gi de ma ci jaaxal ci gént mu xëy aw yoonu Tiwaawan waaw ah, baax na ci su ko defee nag ngeen ñëw yépp ñëpp teggaluñ kenn ñëw te mu man ko ku ko manul rek lañ ko teggi waaye ku ko man rek na nga ñëw fekkee gàmmu yonent bi Seydil Hadji Malick moo ko ko sosal fii ci Tiwaawan di wax ni nañ fi daje ñun ñëpp màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko war a màggale ak li mu yelloon euh, ñu ngi am na benn kooku xëy na Abdul Hamid danañ ci ñëw ak yéen ak ñoom Cheikh Ahmed Tidiane si bu ndaw euh, nëtwe bi nga xam ni danañ ko def bésu noppalu bi ak euh, muhadaraat ak guddi yi nga xam ni guddi burdu yi nga xam ni xale yi dañ ko taxawal ci waaw ku mënul ñëw fekk burdu Tiwaawan nga def ko ci sa dëkk waaw dafa rek jël benn bunt ci burdu bi woy ko euh, jox ko yonent bi hadiya ndax burdu dafa xaw a doy waar ah, burdu lu nekk nga ci baytu bu nekk am na lu muy faj bés bu ne gun bu nekk am na lu muy faj waaw leneen la ci yonent bi def defal borom waaw moo tax mag ñi duñ ko bàyyi fii ci réew mi duñ ko Seydi Hadji Malick dafa ne téere bu day ni mim yi dale ko ca ba yonent bi nekkee leer te nekkagul doomu aadama di ko jàpp ba mu ñuy jël ko dugal ci bàmmeel ka doon gis ndox ma ca kaw bàñu mel ba sax moom du tudd na waaye du tee bu gàmmu jotee burdu lay jël di ko woy bayit euh, bunt par bunt bés bu ne fukki bunt noppalu benn bés bu mag ba ñëw nag mu gàmmoo miimye bi waaw gàmmoo miimye bi bi mu def ci yonent bi sallallahu alayhi bind na lu nekk ci yonent bi moom Seydi Hadji Malick waaw boo jàngee miim yi ci nga xam capacité waaw ci nga xam capacité ñi ngi wax kifaya ifham ci téeram yi mu bindee la bokk mais bur euh, miim ya moom dafa yéeme waaw ñi mu bokkal diine ji te bokkuñ ci réew mi sax ku ko ci gis ba jàng ko da ngay nan la def ba taalib bi bi téere ci yonent bi euh, indi lépp indi lépp wala ma kon muy buntu muy téere boo xam ne téere boo am am solo waaye li ma am solo buddu lañ fi fekkoon mag ñi di ko jëfe waaw ñu di ko def rek fa bunt ba bés bi nga xamee ne am na fukki guddi noppalu nag benn guddi daldi di préparé nag guddi gu mujj gi ci mooy guddi juddu ga euh, bu ko defee si guddi fukki fan ya benn bi seet di fukki fan ak ñaar ñu ñaanal ñëpp jàmm nag yal na yàlla def jàmm ci ñi ñëw ak ñiy dem yàlla bu ci benn accident am yàlla na yàlla jox ñëpp jàppandal ba ku bëgg a ñëw rek ñëw te doo am dara loo gàllankoor sëriñ baa ngi leen di nuyu yéen di leen ziar di leen invité ci gàmmoom gi nga xam ne mooy ñetteel li gàmmoom bi mu jotee xilaafa gi ak léegi jële ko ci magam ju baax ja Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour mu jële ko ca seen baay bu baax Alhaji Abdoul Aziz Sy mu jële ko ca magam ju tedd ja Seydi Aboubacar Sy mu jële ko ci Seydi Alhaji Maalik ci kàddu waaw yooyu la fi yàlla teg loolu la ko waxoon Eh, kon nag mu ngoog mu ngi ci invité ñëpp di leen jottali nuyu ñu jogoon kii yëpp sëñ Babacar Sy Mansour sëñ Hadji Malick Aziz ñoom ñëpp maa ngi wax ci seen tur waaw loolu moom maa ngi koy wax léegi di set set an nazafa laxas say loxo bala ngaa lekk muy gan ak dëkk nag mu koy wax léegi benn waaye dafa mel ni man fa damay faral di am biir bu ndaw man ko da nga dul laxas sa loxo bala ngaa lekk ma ne ko booy lekkee sa loxo bala ngaa lekk na nga raxas ba mu set soo mënee am kudd nag def ci sa poos fu ñu la ko taaj rek nga génn waaye bu loxo bu tilim maana di tali te gis nga di yéeg nii di jàpp ci booru ak lokke yi ngay ubbi ndax ñëpp koy jàpp gis naa benn docteur ci Espagne mu ni ma donc damaa doon tukki ànd ak sama benn xarit ñu egg si rek ci hôtel bu mu am benn jaari terrible ma daw jaaxle xaw ma fi kan maag moom rek dañu am fu ñu doon def daw ñu tegtal ñu doktoor docteur baa ngi ci biir hôtel bi mu ñëw seet ko ni ma dafa war a lekk rek lu setu loxo mun ma xanaa xamoon ni mu gën a jo gaaw a joxe koleera raxasoo sa loxo lekk ni boolee laxas jox kenn ki mu raxasu mu ñuul kub mu jox kenn ki beneen bon mu raxasu mu leer nañ mu ñëw indi ñaari raxas yi ne ay bàyyi bàyyi may ma kii <laughs> borom raxasu set bi <laughs> mu ne ko mu bi laay doom danaa la ko <laughs> laal di ko may waaje mu ne ko waaye moom raxasu rek la jamee jamaaleem ba raxasu set bu demee na kon tabaarakallah ñu ngi ñaanu ñëpp jàmm yal na yàlla jàmm ci réew mi yal na yàlla def jàmm ci diine ji yal na def jàmm ci nguur gi yàlla musal ñëpp ngi leen di jotal nuyu kilifa yëpp man maa wax ak waaye seen làmmiñ laa waxe waaw xalifa bi moo nu sant nu ñu wax ci turam Cheikh Seydi Aboubacar Sy Mansour kazalika Seydi Hadj Malick Abdoul Aziz ñun ñëpp ñoo ko bokk ku ci jëkk rek yaay sa morom yàlla yàlla saxal loolu la yéen itam yàlla barkil seen métier yéen journaliste yi ñi ciy wax ak ñi ciy bind ak ñi ci photo ñëpp yal na yàlla barkeel la ñu nekk ba ñu am ci la ñu bëgg danañ fa dajawaat diwen te diwen dàqareel gën a bari xaalis gën a bari jàmm xam naa kuy ñaanal nit léegi moom ba ñaanal ko xaalis rek waaw ah, ndax moom looy dootu ñaan leneen loo ci ñaanal leneen te xaalis bokku ci waaye kii maa ngi maa ngi wax lii mooy wax la ñaanal lu ma xaalis xanaa di ma wax léegi nag xam nga xaalis daal baax na nit ñi fonk nañ ko lool yal na yal na ñu ko yàlla boole jox boobu ñun ñëpp tubaab waaye nag mu ànd ak jàmm waaye nag mu ànd ak jàmm ñu nuyu ñëpp nag tous les journalistes yi nuyu suñu frère Hadji Mansour dañu fi yàgg daje ak moom waaw di fe di ko fekkee di ko fekk ba ca kanam waaw ndax mu wóor la ne boo dee àjjana nga jëmit du nga war a gën a bëgg dund waaw su ko defee kon dañuy ñaan gunge leen yéen xale yi ngeen gën ñeme bu dem jotee nag ñu dem bàyyi leen ngeen continuer seen mission yal na ko yàlla def tabarakallah ñu ngi ziar ñëpp ba kii jullit yeeg ba kii taalibe yi kullu waaxidin minhum bi ismihi wa aynihi nusallimu alayhi wa nuhanni'uhu wa naqulu lahu alf alf alf xayr junniy junniy yiw yéen nañ ko am ci bis bi tabaarakallaa ngeen bàyyi na salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw euh, bi président de la république di ñëw ci waaw mooy le 26 ajjuma le 26 ci lay ñëw incha allahu tiwaawan fi lay julee juma ñuy ñaan mbokk yi taalibe yi bokk dëkk ci gannaaw tiwaawan yëpp ñu ñëw julleendoo moom juma fii ci Tiwaawoon waaw na ko ñëpp fekk si ñu ngi woo ñëpp ñu ñëw fekkee jullit juma am fii ci Tiwaawoon tabarakallahu chance la waaw chance la yàlla moo def loolu ci Sénégal foo gis rek gis nga këru diine koo xam ne tabax na loo xam ni ku fa dem am yàlla waaw euh, Tiwaawoon ni bokk na su defee ñu ngi invité muqaddam yi dëkk ci gannaaw Tiwaawan yëpp ak ilimaan yi dëkk ci gannaaw Tiwaawan yëpp ak biir Tiwaawan ñu àndandoo ñëw julleendoo moom juma suñ jullee ba nag mu yebbi leen nu yebbi leen ngeen dellu seeni kër waaye rek loolu rekk lañ leen di ñaan ngeen ñëw teeroondoo ñun gan gu màgg gii ñu am muy président de la république du Sénégal alxaaji Macky Sall eh, tabarakallah eh, danañ ko fonk ndax Tiwaawan li ñu am ñooy fonk na ko mi ngi fii def lu nekk mi ngi fi am ay chantier di ko fi def ngir teral mag ñi fi tëdd rek def ko ngir ñun mag ñi fi tëdd lay teral waaye di lu benn xalifa bu paase moo tax mu di ko def mag ñi jiitu waaw ñooñu la teral moo tax chantier yi ci Tiwaawan yi mu def ko te bu ko defee woon it duñ ko wax dara dañu xam ne rafet na yellu na waaye nag du force bu ko defee nag kon mu xalaat ko di ko def danañ ko ci sant te dañ ko tax nu gën ko bàyyi xel nag ndax ku la bàyyi xel nga bàyyi ko xel loolu rek la su ko defee na kon bu ajjuma ñu ngi le vingt six muy ajjumay ëllëg ji bu dellu see waaw bu dellusee ñëpp nañu ñëw jullee ci Tiwaawan juma ah julleendoo ak moom ak kilifa yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Tiwaawan te fas yéene doxal ndigalu xalifa bi ñoo ñëw dañu àndandoo ak moom julli Tiwaawan ñuy invité nag ah, kilifa yi fi nekk yëpp ndax ñu ñëw bokk ci julli googu euh, yal na yàlla nangul nangul leen tabaarakallah ngeen baal ñàq salaamaaleykum wa rahmatullahi kàddu yi la ñu jëlee ci Seydi Abdou Aziz Al Amin moom ci boppam wax na leen ko du kàddu xalifa bi la di Cheikh Cheikh Sidi Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum kon nag ni mu leen ko ñaane ñaan jullit yëpp ak xarit yëpp ak soppe yëpp ñëw Tiwaawan nu julli juma ak le président de la république Seydi Abdou Aziz Al Amine woo na yi xam ne dul dëkk ci gannaaw Tiwaawan ak ilimaan yi ak képp ko man ngeen ñëw teeralul ko gan yi xam ni ganu kër Cheikh Seydi El Hadji la ak jullit yëpp lii la ñu jëlee Seydi Abdou Aziz Al Amine léegi nu tàll loxo yi mu ñaan ngeen des nga alxaaji Amine ak président allahumma amiin